salaamaaleykum tout le maa ngi maa ngi ziar ñëpp di bëgg ñëpp euh, di di leen nuyu bu baax a baax di présenté wu seen fel Abdou Karim di euh, membre maa mouvement Nittu Dëgg Valeurs di ñaan yàlla rek bañ fax lu ñuy xebee euh, alors ñëw tey ci sunu vidéo yi nga xam ñu ngi koy def saa su ne muy ay chronique yu ñuy def semaine bu jot ci actualité beeg xew-xew yeeg si suñu xalaat ak suñu point de vue suñu suñu gis-gis ak pour gën a leeral askan wi pour bu duñ jógee bu jug jotee ñu buñ jugee ñun ñi xam lan moo tax ñu jóg alors damay commencer d'abord ci li may ci tey damay wax ni damay wax d'abord ci Doudou Ka mooy ki nga xam ne mooy directeur DG euh, AIBD nga xam ne mooy aéroport euh, bii nii sunu aéroport bi euh, keneen ki tamit mooy ce son nga xam ni moom moom la gars yi jot a wax ñi ñi xam ko gis ko mu jot a affiché wu am yu bare bari yoo xam ne jot nañ ko fi te ñu war ci ñëw balaa may tëj mu ñëw ci li nga xamante ni mooy Dubaï bi nga xamante ni sunu homme politique yi ñu ngi fa Macky Sall ak la fa xew yëpp si doy day koyet di euh, ñëw aussi tëjee ko suñu kilifa diine yi. ma d' abord ci Doudou Ka ci Macky Sall euh, bu salté bi politique nga xam ni dafa ñëw yàq lépp loo xamante ni maanaam administration da ko yàq def ko lépp loo def politique la police ñi politique la gendarmerie ñi politique loolu dañ koy wax di ko waxaat répétition lay nekk léegi loolu dafa dem ba yóbbee ñu que ñun léegi. c'est-à-dire ñun suñu directeurs yi suñu DG yi ñoom si bërëbu liggéeykaay ñu nekk nga xam dañu fa war a nekk di liggéey amatuñ jot soo élection jotee dootuñu am jot parce que xam nañ ni Macky Sall def na leen ku ñu gagné sa localité rek da lay dàq alors loolu bokk na si lu waral Doudou Ka mi nga xam ne mooy ay AIBD alors moom certes que wér na ko wóor ni ko mënul am dara Casamance xam nga Casamance nekk fa di attaqué euh, Pastef fan nga fay attaqué Ousmane Sonko loolu loolu loolu man dama wax ni loolu c'est-à-dire ça a été mais nit ñi comprendre ñu parce que dafa am lu xew loo xam ni il faut ñu expliquer ko Sénégalais ñu xam ko li tax nag moo wax si sax moom day porter plainte bi euh, ce xamante ni gis nañ ko ndaw si dafa am lu mu wax dafa am suñu benn sœur journaliste bu nekk Walf Fadjri di def chronique émission petit déj maa ngi bëgg bu baax di leen wax ne journaliste yi ñun nous toujours avec eux si lépp nag côté bu ñu feete ñu ngi ànd ak ñoom parce que fu ñu tax parce que ñu a dimbali Sénégal tey ñun fu ñu àgg moom dafa def suñu sër bi dafa am lu mu wax ci ci ci ci balaa muy ñëw si Doudou di ci gën a sori ñu dem déglu ki nga xam ne mooy Alpha Umaru Sow li suñu sista Coro wax ci moom nga xamante ni moom mooy le gars le nervi la dañuy dañuy njëkk a jël sax image yu Alpha Umaru Sow ba noppi ñuy soog ñëw ci li sista bi wax ci moom ñu dem déglu Alpha Umaru Sow après avoir attaque le cortège yu Sonko bi fa ñu nekkoon ca Casamance ak yooyu ñu déglu ko moom discours li mu wax. dëgg la c'est na dëgg la Ousmane Sonko amuñu ko tabax dëgg la dëgg la Sonko lan la fi si buntu kër la fii ok Alpha Oumaro Sow mii nag pour ñu bañ a réeroo moom au fait dafa am lu am solo loo xamante ni il faut sénégalais comprendre ko si moom moom la ndaw si wax Coro Coro ñu koy remercier bu baax a baax ci investigation yi mu def que waa ji AIBD lay liggéey waa ji AIBD lay liggéey donc c'est-à-dire moom xam ne ni tey bu fekkee Macky Sall dàq na patron bi muy patron bi su gañewul localité yi parce que dañu ni parce que foofu duñ ko gañe foofu ñoom mënuñu ko gañe donc Macky Sall day dàq waa ji dootul nekk DG AIBD moom dootul liggéey parce que fa lay liggéey alors li mu taxaw di wax ni yëpp mooy moom place am ak lu mu dundee ak këram ak néewam ak ci doomam lay xalaat xalaatul Sénégal moom li mu taxaw di wax attaque yi muy attaqué au fait moom genre mercenaire la quoi genre gaañ la boo xam ne am lu fit di attaqué di créer ay gangam ñu koy jox xaalis mu topp ci ñoom di attaqué parce que moom il paraît moom moo attaqué woon Guy Marius Sagna fële ci ñaniñ bokk na ci nervi yi attaqué woon jumari Marius Sagna d'après Thioro ñu dem déglu Thioro li mu wax ci Alpha Oumar Sow mi dafa am benn tête bu ñu génne benn benn nit boo xam ne génne nañ ko ci mbir mi mhm. te it am na ay tuuma yu ñu ko tegal bu baax baax ci li nga xam ne moom moo di ci ndoddam ci mbir mi mhm. mu yuyoo ci turu Alpha Oumar Sow Alpha Oumar Sow mi ngi dëkk ci yëmbal mhm. euh, xam euh, habitant de yëmbal la moom gis nañ ko ci biir vidéo yi moom moo yëkkati kàddu wax ne euh, ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko fi mu ñëw moomeelu Doudou Kala tax nañ looloo tax ñoom ñu révolté wu te dëkk yëmbal yëmbal gii la dëkk AIBD lay liggéeyee <laughs> mhm. Mhm. moom nee nañu sale boulot yi moom moo koy def lu ñuy wax ci wàllu nervi moom mooy nu mu Alpha Oumar Sow la tudd Euh, euh, technique bi mooñu mooñu moo lii moo tax mën ñu génne vidéo bi nga xam ne def na ko vidéo baa ngi circulé mhm. ci réseaux sociaux yi boppam mi ngi nii mi ngi nii kii la Alpha Oumar Sow kii la mhm. ba pare ci tuuma yi ba tey moom bu ko xoolee ci réseaux sociaux yi na ko dégg nee nañ moom moo attaqué woon euh, Guy Marius Sagna mhm. ca ñali donc kii ay mbiram ku jara taxaw seetlu la ok ñoo ko gisandoo dégg ngeen Coro lu mu wax Coro moom leeral nañu kan mooy Alpha Oumar Sow ce gars taxaw di def comme si moom ci ful bi la bokk di expliquer mel ni comme xamul lu xew alors Thioro bi mu defee sortie bi nag femme bi petit déj la nekk bi mu defee sortie bi après waa ñun nag yàlla dafa def ñun Sénégal lañ fi nekkal ñun Sénégal ñu bëgg a xamal ko ni ko ndar ñëwoon sax wax si cas bi parce que dañu woon dañuy bàyyi mu jàll parce que nag da nga ne da yi nga xam dañuy liggéey di def seen devoir ñun ñu bëgg la wax ni la plainte bi nañ ci boolewaale Abdou Karim Gueye boolewaale ci nit dëgg valeur parce que li femme bi wax loolu moom du ko ay investigation yu wër la yu mu def ba mu leer ko yow mi ni AIBD ngay liggéey yëmbal nga dëkk xam nga euh, Doudou Ka malheureusement Macky Sall moo koy def mooy fekk ay nit tekkiwul dara mu jël leen leen jéem a def dara parce que Macky Sall moom tekkiwul dara alors Doudou moom xam na ni moom arrangé wu Ousmane Sonko arrangé wu ko xam na ni moom il est foutu parce que élection locale yi bu ñëwee moom mënul gagner Casamance 2 pour cent sax du ko fa am. mais xam nga attaqué Ousmane Sonko Casamance loolu nit mënu ko def te préparé woo ko rawatina nag nga jógee AIBD ànd ak ay nit yu liggéey AIBD c'est-à-dire moom Doudou Ka moo ko defal place mooy seen parti seen seen seen poste politique yooyu noonu ñu jël ko yóbbu ko mu dem ba foofu préparer seen coup pour attaquer li nga xamante ni dañ doon xaar euh, côté côté yu Sonko bi waa Pastef yeeg attaqué président Sonko c'est-à-dire problème bi mooy li ma bëgg wax mooy pour ñu comprendre ni nekk ci risque parce que xam nañ ne Macky Sall ni muy liggéey ni muy gouverner ñoom daanu seen place. donc il faut ñu def loo xam day indi coow te liñ ci jublu du dara lu dul mooy li presse yi di wax parce que L'Obs lii la wax gis nañ li L'Obs wax te pourtant c'est archi faux lii du ay du du du dañ naan ay dañ naan dañoo euh, dafa am ay ay ay attaque wala dañoo dañoo songante xeex alors que c'est faux agression la cest à benn parti moo dem songi beneen parti lii léegi ñoom Doudou ko li koy intéressé du dara mooy yeneen médias yi ñuy def mooy comme gis ngeen journaux yi ñoom leen intéressé na Macky Sall gis rek ñu def Doudou Ka ci euh, à la une def Ousmane Sonko à la une ñu def leen ñoom ñaar nii seen photo yi na ko Macky Sall gis rek loolu ñoom ça leur suffit donc ñoom lii moo leen tax a jóg Sénégal ñoru leen te li ñuy tax di xeex yëpp Sénégal ay comprendre ni seen intérêt crypto personne moo leen tax a jóg te ñun doxuñ ci loolu ñun li ñu bëgg mooy pour ñu comprendre ni Sénégal nekkul dëkk boo xamante dañ koy bàyyi ak Macky Sall mu continuer def lu ko neex te loolu ñun duñ ko accepter donc loolu a baax le Thioro nag journaliste la boo xam ne dafay chronique petit déj foofu noonu mooy def tout ce qui li nekk ci toile bi et ci internet bi et tout actualité net bi et parce que waa moo def vidéo di attaqué di wax moo tax femme am sañ suñu dem def investigation ñu ngi ko wax ni ko nañu porter plainte tamit moom moo attaqué woon Guy Marius moom moo nekk ay débé yëmbal lay liggéey ñu préparé ko ñu programmer seen i affaire ànd ak seen i nervi dem ba Casamance pour attaquer euh, président Sonko ak waa Pastef foofu donc loolu moo am ba pare gaañ ñëpp gis nañ ko mi ngi noonu image baa ngi nii gis que ni ñi gaañ donc loolu loolu moom ok bu ñu jógee si loolu damay ñëw si euh, li nga xamante ni mooy euh, mooy euh, Marème Faye Sall mooy seen demu Dubaay bi déjà dañuy dañuy njëkk jël image yi nga xamante ni mooy Marème Faye Sall à Dubaï avec ses griots ñu koy way di ko tagg nañ déglu Marème fay Sall ak géwalam yi fële ci Dubaï neex ma ma ñibbi Dubaay. waaw man maa may jiital ba mu neex ma ma ñibbi Dubaay. waaw parce que jar na ko. waaw la jógee Sénégal ñu dañuy béykat. yaakaar ko. warul wax dëgg ci baax. dëgg la. il faut que Sénégal boo xamante ni ñun école tijji na de am na xale yoo xam ba léegi jànguñu ndax nawet bi dafa taas seen nawetu daaw ba ren moo taas seen seen école yi am na enseignant yoo xamante enseignant yoo xamante ba léegi mooy loolu ay abri provisoire loolu waxatuñ ko Sénégal enseignant yi ñu ngi jooy médecins yi ñu ngi jooy waa principal boo demee démb vendredi ñu ngi woon buntu ministère de la santé di manifester parce que ba léegi ñoom seen seen seen seen prime yi ci bi kenn joxu leen ko seen salaire kenn fayu leen ko médecins yi nekk principal. urgence ñu ci bari ñu ngi taxaw di jooy ñu jógee ci loolu bu ñu demee xool dund gi ñun maa ngi koy wax lu démb ci manifestation ma ne ñun dund gi ñun lañ ko yokkal parce que ñun ñëpp ñooy dund mais bu cher ceeb bu cher gaz bu cher diwlin bu cher état du Sénégal yoonam nekku si bu ñu jógee ci loolu ma wax ni li gën a doy waar ci affaire yi mooy amul benn yoon boo xam ne Sénégalais yi nekk nañ ci jàmm du ci transport du ci courant du ci santé. wax naa ko chaque jour moo wax ko sénégalais dañuy jóge ba fu ba fongole mi ñëw di nekk di fanaan ci couloiru hôpitaux yi pour xaar ay résultats analyse chaque jour moo wax ko boo génnee Thiès rek boo dawee tuuti di nga gis village boo xam ni amul poste de santé boo amee poste de santé amul ambulance dañuy gis ay village yoo xam amuñu eau potable Marième Faye Sall taxaw dajale géwélam yi ñu dem dem dem dajale prostituée ñan baal ma ci baat yi dajale ay rango rango ma nga Dubaay quoi taxaw di défendre ñi képp ku leen défendre rek ànd ak géwél yi dajale leen jël xaalisu réew mi di ko foowe di leen ko jox ñu wan ñu ginnaaw wan ginnaaw sénégalais yi te ñëpp gis nañ xeetu ñun la jeunesse sénégalaise coono bi ñuy daj ci réew mi ak nit ñi ni ñu sonnee nga xam ne transport en commun bi rek xëyal lekk nga xool nga génn sept heures ki suba nga xool nit ñi ni ñuy dang-dangee di daw pour dem liggéey ni ñuy sonnee ci oto yi ñu gis jigéen bu boot doom taxaw ci tataayu xat yi kenn du ko may mu toog ndax kat nit ñi ñëpp a ngi jaaxle ku nekk yaa ngi xalaat sa avenir stressé 2000 francs yi nga mën a am ci café Touba bi ngay jaay suñu yaay yaa ngi jaay ay table ñi di jaay fondé Sénégal a ngi métti métti boo xam ni ñoom ñi ngi jël àll di ko fowe jël passeport diplomatique di ko jox ay prostituée di ko jox ay góor jigéen jël réew mi teg ko foo xamante ni dafa jéggi dayoo tamit te loolu yëpp nekk mbir moo xamante ni je pense que jot na ñun ñu leeral sénégalais ñu xam ku jub défendre leen rek ñu ànd ak yow ku leen défendre rek ñu ànd ak yow prostituée yi xoolal man d'habitude sax damay bëgg di wax sax si ay genre nit yoo xam ne amuñu benn njëriñ quoi mais day baax parce que man li tax ma def lii man sëriñ si ñoo tax may wax may jël lii di ko souligner parce que femme yoo xam ne ñoom duñ koy xam koy xam dañuy dem jëli image yu rangu bi rangu ma nga Dubaay kii mooy jigéen bi nga xam ne mooy wane awraam ci internet ci internet bi di wane ay sexam mooy ànd ak ñoom di lëkkaloog ministre yi di lëkkaloog Macky Sall di leen defendre ñu jël ko di ko jox xaalis jël ko di ko yóbbu mooy cest à kii nii ñu déglu tuuti rek. jëmil nañu may tuuti rek ci ay parole rangu après mu ñëw nag man bi ñu wax ak sëriñ si nag quoi. ñu la bon yéen ngeen ne doo leen bàyyi Macky Sall yéen yéen Macky Sall leen am président bu ko gën yéen xanaa jaaroo leen si yoonu jam ñaajo bi yéen Macky ngi liggéey lu rëy a waaye foo leen dikkee rek Macky defu fi dara Macky def fi dara yéen boo leen jëlee Macky senegal yéen koo leen fiy teg yéen yéen ngi kat gaynde kat yoo leen xamul benn muy Macky Sall. ñaar maam bay ñaam mu baax mi ñett Souleymane Jules Diop ñeent xam ngeen ko de Aly Ngouille Ndiaye mi nga xam ne gàcce gu mu fekkee faj ko kenn du moom. waaw du ma si non comment la quoi may wax ni kilifa diine laay waxal imaam yi nga xam ne ñoom dañuy bàyyi xel ñu ñun ci xeex yi ñuy xeex ndaw si du ndaw si ànd ak moom sax waxuma dara mais sa image lay yàq sa tur lay yàq waxuñu ne ku nekk mu yàlla rek a xam mais yaakaar naa ni ki am na feneen fi nga ko war a mën a teg ci fexe ko delloo si. ci indiwaat ko parce que du exemple ci fexe ba mu mën a dimbali ko dimbali boppam ba pare mën a taxaw soogee mën a taxaw foo xamante ni day taxaw di am lu muy defaan ñu koy jël di ko gàdd di ko yeb ci avion yi di ànd ak moom di tourner ci lu toll ni ci kilifa. lu toll ni institution yi nga xamante ni moom tey moom moom la nit ñi yaakaar jël ko teg ko ci loxo loxo Macky Sall mu ànd ak prostitué yi ànd ak géew yi fokkat yi réew mi ñu ñaa ngi sonn sonn sonn ba sonn bi jéggi dayoo ci xalaat léegi nag man message yu ma maa ngi ko wax kilifa diine yi. kilifa diine yi laay waxal quoi parce que kat ñun ay taalibe lañ te euh, gis nga olof day wax mu ne am yàlla yàlla mooy buur ñàkk yàlla yàlla mooy buur message bi nag xalif généraux yëpp laa koy wax ma ñun ñun ñoom rek lañ am c'est-à-dire ñun ay taalibe lañ loolu laa bëgg ñun dañoo bokk ci këru diine nekk ay taalibe man amul kilifa këru kilifa diine bu ma toogul man amul fu ma toogul waxtaan leen waxu góor jigéen expliquer leen Macky Sall ni mu nekkee di dooleel góor jigéen Sénégal wax leen Macky Sall ba mu demee Charlie Hebdo wan ginnaaw mu wan ginnaaw yoon ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam keroog bu ñuy def manifestation góor jigéen fii nii Sénégal yëpp màbb génn ba tey Macky Sall tegu fa tànkam préfet de Dakar sax tegu fa tànkam benn autorité tegu fa tànkam police sax ñëw fa pour encadrer manifestation bi ñun ñëpp ñu taxaw fa manifester naqarlu ba ñuy porter plainte ba góor jigéen ñi di porter plainte naan dañuy attaquer suñu sëriñ si dañuy attaquer Babacar Mbuub Adama Mbuub dañuy attaquer Cheikh Oumar Diagne dañuy attaquer Abdou Karim Gueye Dambodj yooyu yëpp bay leen wax di leen dugal ay plainte pour leen def leen ay nit yoo xam ne dañu leen pour ñu am accès en Europe ñun suñoo neew ci loolu mais li am solo man fi ma bëgg waxee mooy li tax ma lii kàddu bi ma di ko wax ñu ginnaaw ñuy attaquer nit di leen dóor ndax ay nit lañ dóor nii Casamance keroog ba ñu jógee ba jekku Macky Sall kilifa diine ñoo taxaw ne leen bàyyi leen ñun ñëpp ñu bàyyi Touba dañu wax bàyyi leen ñu bàyyi Médina bàyyi wax bàyyi leen Kaolack ñëpp kilifa yëpp wax bàyyi leen ñu dellu ginnaaw te ñëpp déggoon nañ ne kilifa yi wax ne Macky Sall dafa dëgër bopp parce que wax nañoo moom ba sonn waaye Macky Sall déggul ñun ñun ñu déggal leen dellu ginnaaw Macky Sall léegi day ñëw sukk si yéen bu ñëwee ak noot gi mu noot askan gi ak manque de respect bi askan bi ba léegi nii. jafe-jafe yi nga xam askan waa ngi koy dund yokkul gaz yokkul pe yokkul yokku gaz yokku dund yokkul lépp loo xamante ni ñun ñoo koy dund ñun ndax kilifa yéen yëg ngeen ko est que yëg ngeen ni Macky Sall fi mu ne nii ma ngay puukare dajale jigéen yi baaxul yëpp bi di wane seen i awra te nëbbuñ ko di yàq xale yi dajale géewal yéeg ñu jël àllu réew mi dem Dubaay di fo naan dañuy def lu kenn xamul fort mu leen fa yóbbu te ak yeneen yoo xam boo fi toogee di ko lim du que xam ngeen ni Macky Sall miy toog ci yéen tey tey kilifa diine mu fekkee ni ñun ñooy taalibe yi ñun li ñu toppee diine li diine tax ñuy wax diine li ko tax maanaam képp koo xam ne kilifa diine nga léegi kilifa diine institution la Sénégal parce que dañu am pouvoir boo xam ne ñoom ñëpp ñoom yow wax ñu dégg tey ñoom bu fekkee ni tubaab bi ñoom bu fekkee ni tubaab bi ci ñoom la ñuy mën a jaar jaar ci Macky Sall ba Macky Sall dem sukk si ñoom tubaab bi dem bay sukk si ñoom pour ñu wan ñu ndax askan wi sonn nañu kan mooy taxawu askan wi nga xamante ni ñoom ñoom rek la ñuy déglu xaw ma ndax comprendre nga li ma bëgg wax li ma bëgg wax sëriñ si mooy fi ne nii ñun sonn nañu ñu mënatuñu ñun ñooy dee ci gaal gi plus ba léegi nii ba waxtu wi nii ay xale ngi dee ji dugg ci gaal gi ngir uti lu ñu seex ak lu ñu sexal seen i njaboot ak lu ñu jox seen waajur ñu sex ñu bàyyi fi lépp di daw te ay taalibe lañu ba léegi ñi ñaa ngi dund mbënd gu mettee méttee te ay taalibe lañu ba léegi taalibe yaa ngi ci dëkk bi di dund jafe-jafe yoo xamante nit mënu koo xalaat. ci jaayam jaay ay kii policier di leen dàq ci ambulance fii dóor dàq daw dugg ci lu nekk ñu ngi ciy dugg te ku ci def naka sulu noonu ñu tëj kaso ba damm caabi ci bu fekk na ñoom ñu nekk ànd ak Macky Sall Macky Sall faalewul sëriñ si faalewu leen ba pare ngeen bëgg ñun ñu ñun ñu faale leen sukk te moom faalewu leen faalewuñu te yéen bu ngeen waxee rek ñu topp leen sukk ñoom moom moom moom mu ko ne ñu noot ñu bës ma koy daanee histoire u France France dafa amoon la révolution française France nii la meloon comme Sénégal Sénégal fi mu toll nii nii la France meloon église bi ak buur bi dañoo déggoo woon France ñëpp gëmoon yàlla ay catholiques yoo xam ne yu pire yu gëmoon yàlla lañ vrai chrétien ñoom français yi dañoo toppoon diine bi gëm ko topp ko respecté ko topp bañ toppoon diine bi respecté ko nag moo waraloon buur bi noot français yi ba buur bi dëkk bi yëpp sonn amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan ñuy rey borom xam yi ku jug di wax ñu rey la catholique église bi naan bu kenn yëngu. diine waxul xeex diine bëggul fitna diine bëggul ay dal leen toog leen di bës français yi di bës français yi di leen bës di leen bës ba mujj gi askan yi ba ñu sonnee ay jigéen génn di wax buur bi di leen rey ay nit yi manifester ñu leen di rey waa France yi màbb gàddaay songu eglise bi rey prêtre bi rey buur bi teg république franc-maçon yi profité yi ci lañ teg république bii ñuy topp tey franc yi nag yàqkat yi dañuy profité si ay occasion ñu xam nañu mag ñi li ñu fi liggéey kenn mënu ko dindi ñu xam nañ ni sëriñ si am nañ njëriñ Sénégal te Sénégal dëkk bu am kilifa la te bu ñu waxul dina yàqu dañ ko yàq te formation yi nañ ci profité yàqu parce que xam nga lu tax imam bis bu imam sàgganee imaamaam rek ku dul jaamu yàlla moo ciy profité di ñaawal ñuy jaamu yàlla ku dul jaamu yàlla ñi nga xam ne amuñu sëriñ ñoo ciy profité di ñu kokkali ñi nga xam ne gëmuñu diine toppatawuñu diine bi ñoo ñuy tàpp di ñu kokkali di ñu wax yéen ñi ngeen topp ñoom dañoo ñoom te gestu leen ñu ndax ñun sonn nañu te bis bu ñu jugaatee rek musiba dina am te boobaa baat bu ñu demee ba Sénégal baatu kilifa amatu fi rek kuy wax toog leen ngeen toog amatul rek mooy ñàkk nañ Sénégal mooy le Sénégal est foutu seytaane day ci loxom dootuñu am kilifa dootuñu am te loolu yëpp li ko waral lu dul li ko waral mooy seetaan bi nga xam ne yéen a ngi koy seetaan askanu Sénégal ànd ak Macky bi nga xam ni faalewu leen respecté wu leen respecté wul diine bi war na ginnaaw Seydina Mohamed wan ginnaaw diine bi war ginnaaw institution yi sàggane armée bi sàggane police bi sàggane gendarmerie lépp mu jël ko ut ay pion yoo xam dañ ko fi nekkal di noot askan wi yegg nañ ci nag ci ñu instant yi ne vraiment yegg nañ ci ligne rouge bi te kàddu bi may wax kàddu bu ma ñor la te kàddu bu ma bëgg ngeen bàyyi ko xel la te taalibe mooy wax nag taalibe mooy wax te ku gëm sëriñ la ku gëm sëriñ si la ku leen respecté la ku fonk sëriñ si la taalibe mooy wax nag mais dafa jot wax dëgg su jotee ñu waxante dëgg ñu dimbalante suñu biir ngeen jàppale ñu ndax askan wi sonn nañu message bi ku mu mën a dimbali ba sëriñ Mountakha jot ci ku mu mën a dimbali ba sëriñ Mahi Niass Mahi Niass jot ci ku mën a dimbali ba sëriñ euh, sëriñ euh, Babacar Sy Malick jot ci ku mu mën a dimbali ba sëriñ si jot ci boobaa jàngu bi jot ci yéen ñëpp ngeen jot ci ndax ñun sonn nañu ñun sonn nañu te kilifa benn kil benn kàddu moo fi des mooy seen kàddu yéen te bu xësee ba dañ moo la Sénégal est foutu te lii may gis mu raam ci ñaan ko la jëm maa ni gërëm di leen sant di leen baalu àq bu baax baax su wax ji amee lu jafe wala lu dëgër wala lu ñaaw may wax ni rek li ñu bëggal mooy jàmm Sénégal li ñu bëgg mooy dëgg ngir Sénégal jërë ngeen jëf wasalaatu wasalaam ala rasulullah asalaamaaleykum